Euh, Arona Coumba Ndoffène Diouf euh, yëkkati na ay kàddoom wax ci situation dëkk bi wax xalaatam ci diggante président Macky Sall ak Idrissa Seck nee na dañuy comédie te la ñuy wax dara lañ ci gëmul ba pare bëggante wuñu te dootuñ ànd nag ba àddunay tukki ñoom ñaar wax na ci lu bare bari waaye li jaaxal ñëpp nag ba mu yeewoo daal dañ ko indil facture 86 millions yu mu war a fay ci wàllum euh, fixe loolu nag moo jaaxal lu bare bari ñu ne ndax commentaire yooyu mu def moo tax ñu indil ko fixe yooyu di 86 millions yooyu wala lu mu ci doon daal ab jàngal la incha allah Abdou Karim Fofana moo yore kàddu guvernement bu Sénégal nee na Ousmane Sonko daal li mu doon wax démb euh, daal naan dañ ko doon bëgg a assassiné yu ni mel ak dañ ko doon bëgg a faata test yi def nañ ko nee loolu daal dara du ci dëgg ndax nee na état sax bu ne ci bu nekkul ci yoon ak ay dictature ak yu sax duñ bëgg a rey seen i opposant ak nag Sénégal nii muy doxee nee na daal Ousmane Sonko loolu muy wax dara amu ci. Mm. état mosu koo bëgg a fexeel ba di ko rey mm-hmm. waaw mm-hmm. Euh, euh, euh, sooy bu hmm. man mbirum Arona Coumba Ndoffène Diouf keroog rek maa ngi koy euh, euh, laaj euh, Assane ak Alaaji hmm. man je pas comprendre yow nga nga nga yàgg a gis état ni muy doxalee hmm. surtout ni mu génnee nii di ko dénoncer si wàllu pétrole bi ak doxalinu président Sall ak Idrissa Seck ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne nii mu nekk ay faay nga gisoon ko ci biir état bi te teewul boobu ba tey yaa ngi fa nekk noppiwaale ko man je pas concevoir nag nit ngeen ànd pratiquement onze année yoo xamante ne nii yéen a ngi ko doon ànd certes bu ñu defee euh, bilan hmm. it am na ay failles parce que ñëpp mënuñoo yemale mënuñoo rassuré lépp daal ci ci ci ci gàttal nga toog ba tey nga soog a génn non seulement keroog maa ngi ko gis mu génn benn statistique boo xamante ne nii mooy bor yi nga xam ne Sénégal am na ko bi fi Abdou Diouf nekkee Abdoulaye Wade nga gis ni mu yëkkatee bu bu makki bi mhm. élevé wu te loolu gars yi nemmeeku nañ ko dégg naa bor yi nga xamante ne nii am nañ ko buñ ko fayee ba mu estimer sax kenn ku nekk même bébé bi doog a judd sax mhm. nee na daanaka six cent mille poussière ku nekk yor nga ko ci boor ndo ci ndoddu si sa ndoddu xam nga loolu tamit c'est bien nga wax mais daf ko waroon teel la def man mënuma toog nga toog ba dara desul lu dul ñu des ci ay huit mois yoo xamante ne ni élection la ñu war jëm nga toog ba heure bii di ko soog a génne man jàpp naa ni c'était pas le momo daf ko waroon na teel a def wala mu àndandoo woon ak ñoom comme li Assane wax rek suuxandoo woon ak ñoom wala ñoo xam daal macha allah leneen li Abdou Karim Fofana man je pense que euh, comme bu fekkoon Sénégal la ñu jëlee affaire yi sax defee ko fi peut-être bu boobaa mën nañu wax mais waa ji dafa génn dem ba bitim réew. te ñu ko mhm. xam nañ ni euh, scientifique yi nekk foofu. fu noonu ci ay affaire euh, kii yooyu dañ dañ ci dañ doo gis parfois ñu ñu génne benn résultat te résultat bi du nekk résultat boo xamante ne bu am la mhm. bu fekkee wax na ko nag loolu am la mais c'est pas à lui de dire que jéemuñu woon assassiner nangam comme que résultat yi ñëw nañ te mhm. ay avocat Ousmane Sonko nee nañ dinañ ci dinañ ci waxtaan xool nu ñuy def mhm. te dinañ bind appel boo xamante ni nii du yem rek ci senegal dinañ ko internationaliser nañu déglu balaa muy wax lenn di jëmale si moom macha allah voilà waa Arona de waaw mm, sorteem yi bi mu njëkk a mooy lii ma jigéen expliqué sànq ci mais liñ wàllu mais sorti bi jar nañu fay la 86 millions fixe ah non looloo tax mais dama ne génn na. def na benn sortie boo xamante ni bii expliqué na. Euh, wax. Mhm. boru Sénégal fi mu toll. Mm. ci jamonoy Abdoulaye Wade ba kii wane di nga xamante ni bii tey fa la ko président Macky yóbbu. Mm. loolu di leen na. leneen li mu ñëwaat parce que boo gisaatee parce que loolu ni mu ko expliqué bon c'est extraordinaire mais démb bi ma dégloowaatee kii yoom bi nga xam ni wax na ko. Mm. wane ni li sénégalais yi di wax dil moom wane na ni du dil maanaam diggante Idrissa Seck ak Macky Sall wane na ni tàggaloo nañ. waaw foofu mu bëgg dugal nit ñi nag moo tax may waaj aaroona ku hmm. muy liggéeyal. non non non non non non non alaaji waaw parce que li nga xam ne sénégalais yëpp nee nañ parce que dafa ñëw wax ñu loo xam ni dëgg la ci bor bi mais Idrissa tàggoo nañ waa euh, yow loo gis la waaw ah, gis naa ko man Idrissa Seck deful déclaration li ma gis ak tàggatoo bokkul moom yow ak ci loo gis kañ mooy ñaar ñu waxtaan wut ay def ay pexe. Hmm. loolu mooy li nga xam ni moom laa gis parce que président Macky Sall ñi mu tàggoo lépp tàggoo ci forme ni mu daan tàggoo. Hmm. boo gisee bi mu tàggook ak Mimi Touré biñ ne moom Mimi Touré tàggoo nañ. foqar si nañ ay yëfam ak yëpp maanaam nekkul ni ay la am amiable quoi maanaam du tàggatoo boo xamante ni bii kii la. Hmm. waaye Idrissa Seck mi nga xamante ni bii day wax ne tel jour danaa dem démissionner président Macky di ko may temps boobu yëpp. buñ demee it ku ne ñaanal moroomam diggante bi sax ndogu nañ fa ñaanal ko ki ñaanal ko nga ndogu génn siiñ euh, mu may bërki dem boo njaay say kii mu say jigéen mu may leen xaalis may leen i billet loolu yëpp ci tàggatoo goo xamante ni alaaji rafetal politique dafa war a moo tax ma ne la waaw mais politique waaw léegi nag moom loolu nag bu ñu bëggee wax nañu Ablaye Wade moom xam nga loolu lépp lu rafet la Ablaye Wade waaw tax kii bëgg a ñëw nag léegi dañu loolu dafa ñaaw waa léegi Ablaye Wade yow kay nga sa bopp waa léegi Ablaye Wade daawul ah. dugg ci góor a gouvernement Abdou Diouf ah. su élection yi mu génn dem euh, liggéey waxal génn dem <laughs> waxal ah. day génn ci góor gi génnaa ci góor gi ngi dem Touba <laughs> oh, waaw waxal loolu daawul am daanaal la quoi non <laughs> <laughs> non alaaj mais bu génnee dina war di affaire xuloo sax am na ci dana génn xuloo daal di kii. <laughs> la. waaw ah. alaaj dafa yàgg doon taalibe de wax dëgg fa yàlla. Ah. nga ne bu génnee opposition day. waaw <laughs> ah, lu muy wax day ne waaw maa ngi dem tuwaat daal dem tuwaat. yaa rek ñaanlu waaw. génnee lu quoi xam nga. ayca kon ñu dem ci waaje rek waaw. l'autre euh, xam nga. Euh, gouvernement xam nga Abdou Karim Fafana buy wax. Mhm. Euh, mooy waxal gouvernement bi. Mhm. ay waxam du samay wax du say wax. dëgg du wax ma jigéen mii. Mhm. maanaam bu fekkee ne dafa am koo xam ne dafa am lu ko daal benn opposant boo xamante ni bii dañu jël mbir mi ñu ne yóbbu nañ ko bitim réew. biñ ne yóbbu nañ ko bitim réew ñu toog benn bis mu bind. ne dina ne dañ ko doon essayer pour faat ko. waaye dina ñëw indi ci ay leeral indeegut ay leeral gouvernement war a gut a tontu. parce que ah. gouvernement. dafa teel euh, waaw non boo booy tontu da ngay engagé kii bi yëpp waa parce que dañ naan nguur gi tontu na donc li mu wax noonu. Mhm. war a gut a tontu dafa war a déglu. ba kii indi yu leer ba noppi dina wax ne lii may def kat cabinet sàngam ak sàngam. Mm. ca nàngam. Mm. ñoom ñoo ko saytu. Mm. biñ ko saytoo. lii lañ ma wax ci mbir mi xanaa mm. loolu Ousmane ko dina ko wax nit ñi mm. Mm. parce que nit ñaa ngi xaar mu indi ay leeral ci li nga xamante ni bi mooy mbir moomu mm-hmm. léegi bu dee yow nit ki indeegut ay leeral la nga ne non mi bëgg a accuser ñii mi ngi bëgg non non mel ni yow da bàyyi ba mu tontu ba mu wax ba pare ah mais Ousmane Ousmane Sonko def na poste waaw non poste dafa wax ni waaw wax dane dañ doon tànte ah. pour fat ko du noonu du loolu la wax ne dina ci gën a ñëw ngir indi ci ay leeral hmm. kon indeegut ay leeral hmm. parce que loolu rek doyagut nit ñi hmm. du dëgg loolu rek doyagut nit ñi moo tax mu ne dinaa ci indi ay leeral kon ministre bi dafa teel a tontu ki non dafa teel a tontu lii mooy li wolof di wax ne ku moom xar mi nga baa buum gi ah xam nga loolu ah, mooy li nga xamante ni moom la def yow yaay porte parole du gouvernement mais porte parole du gouvernement moo tax nag mu war a gën a nekk ku responsable ah dañuy bàyyi gën a teey waaw ah. non dafa war a gën a teey parce que yenn yi son bu waaw da ngay gën a ànd ak dal daal dee tey bàyyi ba jot élément yi nga xam ne moom la waa ji wax yépp li nga xam ne bii jàpp na ni day leen dafa taqal hmm. <coughs> léegi nag yow hmm. gouvernement buy tontu nag jéem a xool élément bu ci ne hmm. nu mu koy weddee wala nu muy kiiwee mais avant résultat yi di génn alaaj yow dégg nga ba dégg ñuy wax ni <coughs> état bi moo bëggoon a faat Ousmane Sonko xam nga loolu la ñuy wax léegi bu ñu nag test yi ñëw na waaye dëggal na loolu test yi ñëw na waaye dëggal la mais nañ xaar daal waa léegi ministre du génn défendre xam nga c'est c'est que mbir mi du kii quoi du mbirum wax ah, na léegi moom koy déglu porte parole alaaji waaw porte parole non d'ailleurs ah, ko waxee hmm. euh, dafa mel ni joxut mbir mi benn xam nga kii bu fekkee ne def na nangami kii parce que Ousmane Sonko bi ñu ko kiiwee hmm. dafa entré hôpital hmm. mu ne ñii def nañ ci moom ay kii mais defe naa ne am na loo xamante mënuñu ko saytoo fii moo tax ñu jël ko yóbbu ko bitim réew donc affaire bi am na temps boo xamante ni bi am na ko yow miy tontu tamit dafa war a am temps boo xam ne da nga koy jël ci wax ji lay wax d'accord il faut nga mu am temps temps bi mooy wane maanaam bu fekkee nit ki dafa nga daa ah loolu du noonu quoi quand maanaam kon kële jël temps dañ koy mën a gën a gëm ko yow mi nga xam ne dañoo wax la nga ah daa dëgg yow du sa du dëgg foo ko teg mhm. kii moom du dëggam nee na bu kii nga wax ne du dëgg ginnaaw moom bi mu ko dalee. Hmm. fii ci biir réew mi nee nañ mënuñu ko xool. loolu information yi la la jox ne jël nañ mbir yi yóbbu nañ ko. bitim réew pour ñu def ci ay analyse d'accord ñu toog pendant ñaata fan. Hmm. maanaam lu mat ay deux semaines. yoo xamante ni waxut ci loolu ñu xëy bind ni analyse yi ñëw na mi ngi confirmer ni liikat am na. Hmm. yaa ngi dégg. mais booy tontu kooku ne serait-ce pour nga gën a respecter sénégalais yi tamit. nga may tuuti temps nga xool. d'accord xam nga wax kenn waxul la ne bul tontu. mais nag yow it jëlal temps saytu liñ lay wax. nga déglu ko bu waxee ba pare nga dem bu dee gouvernement am na moyen Ousmane Sonko bu limee ne tel hôpital ak yi def na analyse sàngam ak yooyu. am nañ war nañ mën a fexe am moyen dem vérifier ndax loolu dëgg la wala du dëgg. d'accord waaw mais bu fekk. jërëjëf ñang te loolu yëpp bu ma bu ma waxaat ñang maa ngi jégalu. ba mu ko wax tey ma yóbbu la ci yoon. maa ngi jégalu damaa damaa juum maa ngi jégalu. Mamadou Sarr mi ngi ci Facebook bi alaaji ñoom ñëpp ñu ngi suivre ak ki nga xam ne moom mooy euh, Fadel euh, Kanté ak euh, Mouhamed saar ak Mama Diouf ñoom ñëpp ñu ngi ci biir incha allah Alioune Sakho ak bari nañu daal maa ngi ci dellusiwaat